yàlla barkeel liggéey yi kenn ku ci nekk métier ma nga yëngu ci ca yëngatu yàlla ko yàlla barkeel loo am yàlla ko muurloo yàlla na yàlla dimbali xale yi toll ci liggéey yàlla jox leen liggéey yu barkeel ñu toll ci njàng yàlla mottali seenum njàng lañ ciy séntu yàlla defal leen ci lu kaw seen jot njaboot gi nekk kër ak àll yàlla sàmm leen làq leen fa yàqu yëggal ñu nekk ci àll bi yàlla sàmm leen lu fa lañ fay wuti yàlla yomba leen ko ba mu des mooy yàlla te am yàlla leen yàlla may ñu muurloo ko bokk ak seen i bokk ak seen i njaboot ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla yërëm na eh, ñu suñuy way dawlu suñu way jur yi jiitu suñu bokk yi jiitu suñu walër yi jiitu ak bokk julit yépp yàlla yéegaleen ca barzax Seydina Muhammad waleen maa nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa ahsana ulaika rafiqan allahuma la tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum yal na yàlla jubal suñuy njiit ñi jiite diine ji ak ñi jiite adduna bi penc mi yàlla def ci moom maanu jub ragal yàlla ak yërmande ci askan wi te yàlla boole seen xol yi ci dimbali askan wi te bañ a kompoloo ngir jariñoo askan wi yàlla yàlla dooleel lislaam ci réew mi ci barke Seydina Muhammad sa yàlla na yàlla defar jullit yi ñu nekk ay jullit te nangoo tënku ci njullit ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Eh, yal na yàlla sàmmal suñu diine suñu ngor ak suñu bokk yàlla bu ma xajama àdduna ak alaaxira mbas mi yal na ko fi yàlla jële ba mu set wicc wicc wicc ku mu dalul yàlla na la dégg doyit ci képp ku mu dalit yàlla na yàlla saafara ku ci faatu tey jullit yàlla nga teere ji ci barka sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bàkka weeru koor gi ah comme ni ñuy sant it sant ndax liñ leen fi waxoon ni moom la ñu waroon a doxi démb ca Dakaaru sàkk woon ñaan yàlla def na ci tawfiq eh, deme na nu kawe suñu jot ñu ngi ci euh, sant yàlla di sant ñëpp ñoo xam ne rek ñaan nañ ci yàlla yàlla li ñu taxoon ñu koy def te mooy jéem a waxtaan ba diine am kaddu ci doxalinu réew mi waaw yàlla yàlla def diine am kaddu ci doxalinu réew mi fii amul Sénégal du am jàmm fii amul Sénégal du dem fenn loolu ku ku ku mu neex gëm naqari bañ a gëm mais loolu muy dëkk réewum Sénégal gii fii diine amu ci kàddoom lu ñu fi dogal di ko di ko di ko yëgal mu ciy wax baatam du dem fenn développement dañ koy dégg mais ko musa am man ko wax waaw kon nag loolu yàlla nañ ko yàlla dimbali ba ñu am yittee taxawal ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, bu ko defee nag ñu nekk ci weeru koor weeru koor di ñu waajal comme ni ñu ko waxoon pour ñu nekk ay jullit euh, fi nekk nag ñu ngi ci commencé bugg dugg ci fukki fan yu mujj yi démb waxoon nañ képp ku mën a def salaatul tasbih ci fukki fan yi nga xam ne benn bis moo ci des ci mujjee woon nañ ko góorgóorlu ku ko deful woon nga def ko yàlla yàlla nangul ñu ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu waajal nag dugg ci fukki fan yi nga xam ni yonent bi nee na dañ ni yonent bi euh, fi ashri al awaaxir min shahri ramadan saa ci yeggee maanaam shaddal midrar day yokk laxasaayam yonent bu fukki fan yi commencé ñëw day yokk laxasa laxasaayam maanaam lu mu def da koy yokk léegi nag ci fukki fan yi nag maanaam dernier virage bi gis ngay ci lay mbir yi leere ñi seen koor nangoo ñi seen koor demul fenn mi ngi commencé feeñ gis ko ki kooram demul fenn day découragé bu daan dem jàkka bàyyi na waaw bu daan bu doon jigéen bu doon muuru dindi na ko waaw maanaam képp koo xam ne rek sa koor demul fenn mi mi ngi ci fukki fan yi nga fi commencé loo nekkoon rek yaa ngi boo daan dem naafile bàyyi nga loolu alaama koo xam ni sawmuhu mardudun yàlla na ci àll musal ñi nga xam ni saw mu siyaamuhu maqbul ñooñu nag ngay gis ni dañuy gën a sawar waaw yàlla da leen di defal tawfiq ci jaamu yàlla wallazina htadaw zaadahum hudan wa atahum taqwaam loolu yàlla wax nee na xam ni tënk nañ seen bakkan ci weeru koor gi ba tegu ci yoon sama joxoñ bi na man maa leen di dolli tawfiq zaadahum hudan ay tawfiqan dañuy sawar ci jaamu yàlla waaw dañuy gën a sawar ci jaamu yàlla di gën a sawar ci naafile yi di gën a sawar ci jàng alxuraan di gën a sawar ci dimbalante di gën a sawar ci jëggal nit ñi waaw loolu mooy alaamatul qubul ci raw mu loola moo tax fukki fan yi bu ci kenn ku nekk ku yàlla ñor day ci bàyyi xel fukki fan yi ci ngay xam ku yàlla ñor ku yàlla ñoru waaw loolu nag kenn ku ci nekk nañ ci contrôler sa bopp fexe ba fukki fan yi nga yokk lépp loo doon def nga gën koo yokk waaye bañ a découragé bañ a wàññi waaw sa jaamu yàlla sa naafil yi nga doon def nga yokk ko sa zikkar yi nga doon def nga yokk sa njàngum alxuraan yi nga doon def nga yokk bu dee dimb saraxe yi doon def nga yokk ko maanaam yonent bi daan def ñun fukki fan yi sax daanañ ci boole sax di yee njabootam te boole ci nag laylatul xadar gi ñuy làmbatu yonent bi dañu woon làmbatu leen ko ci fukki fan yu mujj yi te moom la ñuy làmbatu muy bis boo muy muy guddi goo xam ne ku ko jot rek sa affaire baax waaw ku ko jot sa affaire baax yàlla ñu yàlla may ñu jot ko waaye ku góorgóorlu ba guddi gu nekk nga ñam ci sa lëf lu mu gàtt gàtt di nga ci di nga daj waaw bu defee bu bàyyi genn guddi muy dem waaw guddi guddi guddi gu mu dóom rek fexeel ba ñam ci sa lëf bu ko defee lu mu gàtt gàtt yow di nga ñam ci guddi di am guddi goo ko ñam waaw te bu ko defee nee nañ jibril day wër ci laylatul qadr nee nañ képp mu fekk nga jaamu yàlla dina la mu def mu saafaa bu la ko defee nag dootoo dugg safara mukk ci àdduna aw say rab na safara waaw kon nag loolu guddi gu mel noonu man te ji e, gaañ yi nga xam ni ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy dem di def loterie gaa ñu xoos ak maanaam chance yi ñu am pour gagner njiiru mi million donc njiinu million rek leen tax di xoos am na ñoo xam ne ay ilimaan lañu am ñoo xam ne ay kilifa lañu jaral leen ñuy làqatu njiinum ilimaan rek dem di xoos yi parce que di njiinu million million lañu bëgg million million dañ koy liggéey nag léegi loolu sagam ñoom àdduna moo leen jaral loolu kon yow bi nga xam ni gëm nga ni alaxira moo am njëriñ war la jëriñ yow tamit waaw te chance bi nga am pour am alaxira waa ji xoos ba pare war ciy jële bàkkaar te mais moom jaral na ko parce que njiinu million bi nga xam ni yaakaar naa ni mën na ko ci amee jaral na ko kon yow tiyaaboor na la jaral lu ëpp loolu yàlla nu yàlla defal tiyaabu te xëy ñu ci bopp yi jaamu ko te xëy ñu ci sellal jaamu gi yow asalaamaaleykum wa rahmatullah